أعوذ بالله بسم الله إن وليي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله بجاه جار البديع وخديم الشفيع بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana lhuda bada sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi dawina walil wali laqi lisani wahlul minhu al-uqad waj'alhu dhahiran wa shakiran abad fahimni ilma wa zidni ilma wa amalan wa adaban wa fahma sudura qawmi yashrahan lid-din wal nuuri wal islaami kulla xiin falillahi alxujjatu albaaligo falaw shaa la hadaahum ajmain alhamdulillahi alladi hadana li hada mbokk jur ni assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu ci turu al lajnata saqaafiya muy commission culturelle bi nga xam ne ñoom la Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad dénk ñuy toppatoo ak saytu mbooleem lu jëm ci màggal gi ci wàllu xam-xam ci mbirum Serigne Abdoul Ahad Mbacké commission boobu nag ci njiitul Serigne Abdoul Ahad Jaxate ak ñoom Serigne Abdoul Ahad Bousso Muxtaar Serigne Abdoul Ahad Mutalib ak mbokk yi ñu ko àndal nga xam ne dañ leen yebal ci yeneen bërëb ñuy yëngu ñoom itam ñoo fas yéene ci jataay yi nga xam ne bi màggal gi waaj booba léegi ñi koy am ak yéen muy bernde yi ruux yoo xam ne ñi ngi ko taatane ci dundu sëriñ Abdul Ahad euh, di leen ko séddale ngir ngeen jariñoo ko xam ngeen ne nun ak yéen bu yàgg ba léegi ci waajtaayu màggal bi wutal nañ leen ay waxtaankat yu wuute wutal itam ñoo xam ne dañoo fekkee dundug Sëriñ Abdul Ahad ba noppi jaxasoo woon ak moom seen i témoignage seen diggante Sëriñ Abdul Ahad sottil nañ leen ko la cay wàllu xam-xam ak jëflante bu rafet ak naka la nit di tabaxee dundam ngir addunaam jàpp ak àllaaxiraam jàpp loolu lépp gaaral nañ leen ko noo ngi yéen booboolee ñu dëgmal nag magal bi incha allah muy suba ci palaati berne yooyu ñu leen di taajal ñu jëloon xaw làcc ci sëriñ am laxaat làcc woo xam ne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 ku ñëw yóbbu may goo xam ne seen maam ya amti ko ñëw googu Serigne ba ñëwoon ngir jëmmal wolof incarné der bu ñuul ba wax ne fa sa sa yujibu sawaadal jismi safahatal fatawa suu al fahmi taxaw di nit ku ñuul fii ci Bawol ci afrig liggéey fi liggéey boo xam ne saa buñ ko gisee xel daj yonent bi saa buñ ko gisee xel daj saxaaba yi xel daj awliyaullahi ak nit ñu baax ñépp loola mu doon samp ci der bu ñuul di ko samp itam ci bëgg saw làkk ak li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax lépp ci fonk saw làkk làcc woo wii ci liggéeyub sëriñ tubaa lañ jël ci liggéeyub sëriñ Abdul Ahad bi ñu leen di gaaral ngir indil leen ko waaye nag kulóore ko walla doronkee ko wala xoobe ko nag wala gunge ko ak ay bokk yuy yëngu ci làkk wi ngir feeloo ko sëriñ Abdul Ahad Serigne Lahad dafa liggéey ci làkk wi liggéey bu am solo boo xam ne ci Serigne Touba la ko donne da ko caa namp muy wàllu xikma Serigne bi dafa bari ay géej yu baree bari yoo xam ne da caa nandal ay doomam nang nandal ci taalibe yi géeju xikmam googu nag ci la Serigne Abdou Lahad dëtam tànq ci lu am solo sunu borom dafa wax ne yu'til xikmata man yasha wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasira yàlla sunu borom joxoon yonent bi ci géeju xikma googu mu feesoon ci dell ña ko donn ci ay leer sëñ Tuubaa jiitu ca ëpp la ca donn ko ci géeju xikma googu liggéey ci liggéey boo am solo sëriñ Abdou Lahad nag ca la ko sotti mu génne ci ay xikma yu am solo ñu fas ko yéene ubbee waxtaan wi ngir jëmmale ko dëggal gi sëñ Tuubaa doon dëggal der bu ñuul ak fonk saw làkk ñu taataane ko ci loolu lay taayee ko waxi sëñ Abdou Lahad ci xikma door a jox nag mbokk yi nga xam ne ñoo bëgg a feelu sëñ ci wàllu wolof waaye nag ñu feelu ko jëmale ko ci moom loola lañ bëgg ubbee muy xikma yi sëriñ Abdou Lahad googu géejug xikam gam daada tëm ba ne ko secc moom ñoñam mësee fu caan nandal ko xam toqeen nga doy na xarnu bi géejug xikam googu nag lañ bëgg a ubbee ci waxi sëriñ Abdou Lahad ci wàllu xikma door a jox mbokk yi nag ñu feelu sëriñ Abdou Lahad ci wàllu wolofal yiñ koy njukkale ndax da leen liggéey liggéey bu am solo ci toolub sëriñ Touba. sëriñ Abdul Ahad da daan wax ci xikma ci làmmiñu wolof loo xam ne wareesoon na koo dugal ci école yi ndaw yi di ko jàng am na réew yoo xam ne suñu jotoon ci wax yooyu danañ ko jël def ko ci téere yi gën a mag dugal ko ci miise yi gën a foor ñu koy jël di ko jariñoo ndax njariñal àdduna ak loolu alaaxira lépp ma nga ca biir xëy na réew mi moomagul boppam ci aw làkk réew mi moomagul boppam ci ay jikko waaye benn wax bu ca ne rek téere sëriñ Abdou Lahad daana wax ne nit war naa xàmmee la mu moom ak li mu bokk ak la mu doonul dara nit war naa xàmmee la mu moom ak la mu bokk ak li mu doonul dara ana nan lay def ci li mu moom nee na li mu moom mu téye ko bu wér ana nu muy def ci li mu bokk li mu bokk mu di sa di mu di ca diisoog ñamu ko séqal li mu bokk mu di ca diisoog ñamu ko séqal li mu doonul dara yoonam bañ caa nekk li mu doonul dara yoonam bañ caa nekk bokk na ci waxi sëriñ Abdul yu am solo yooyu mu ne ndaw tëll jigu ko ndaw tëll jigu ko ñu ne ko sëriñ bi lu tax mu ne bu nee tëll rek ne dagaj lu mat a bàyyi xel waaw bu ne tëll rek ne dagaj sëriñ Abdul Ahad ci waxam yu am solo yooyu ci ma boobu mu bon mu donn ci sëriñ Tubaa daana wax ne nit ñi ñett rekk lañu nit ñi ñett rekk lañu ki fi yàlla rek indi loolu lu mat a xamee la ñiy ñëw ci yow nga xam kenn ku ne lu ko tax a jóg mu ne nit ñi ñëw ci yow ñett rek lañu yàlla indi ak ki fi am am indi ak ki fi daraja indi ki fi yàlla indi ki fi am am indi ak ki fi daraja indi ñu ne ko ñett yooyu kenn ku nekk nan la ñuy jëflanteeg mu ne ki fi yàlla indi waxal ko ci yàlla rek ki fi am la andi jox ko te dig ko ki fi daraja andi bul wax ak ku dul moom ki fi daraja andi bul wax ak ku dul moom bokk na ci xikma yu am solo yooyu Sëriñ Abdou Lahad daan wax nee na man duma jélloo duma dox guddi duma seere ma xamul duma jélloo duma dox guddi du ma seere lu xamul bokk na ba tey ci xikma yu am solo yooyu nga xam ne sëñ Abdou Lahad daana mu ne ana lan luy saafara si bàkkaar sëñ Abdou Lahad daf ñu jox compromis boo xam ne day faj tawati bàkkaar mu ne soo bëggee faj sa saafara soo bëggee saafara sa tawati bàkkaar te li ci gën doy doy am am solo mooy bi mu koy joxe misaal joxewu ko ci luy tuxu wala loo xam ne doomu aadama moo ko sàkk ba bu ëllëgee mu sab da ko misaal ci lu yàlla moom loo xam ne ba ba àddina tukki day am moo tax mu yóbbu ko ci lu yàlla bind mu ne ana lan luy saafara si bàkkaar demal ca xur ngëm gas fa reen yi ak xasum toroxlu dagg soxo bi réccu ak cat lawta nag yaakaar sóob ko ci gënnub tuub dëbbe ko kuurub tabe taale ko sawaraw ragal yàlla yàkk ko ci ndabul teggiin naane ko koogu su muñ ñu jaaraat la xam ne ana lan luy saafaras bàkkaar demal ca xuru ngëm gas fa reeni yéene ak xasum toroxlu dagg fa xobi rëccu ak cat lawtan ak yaakaar soob ko ci gënnu tuub dëbbe ko buuru tabe taale ko sawaraw ragal yàlla yàkk ko ci ndabul teggiin naane ko koobu su muñ sëriñ Lahad daana wax ne nit du caageen da da daan leeral nit naka lay def ba xam fi mu tàmbalee ak fi mu war a yem muy wax leen lu nekk fa nga ca war a dale ak fa nga ca war a yem mu ne du caageen ku xam dëgg sañ koo wax ndax nit mën naa wax dëgg ba noppi ñu ne ko dëgg la waaye laajuma la ko mën naa wax dëgg ba noppi ñu ne ko dëgg la waaye sa yoon newu ci mën naa wax dëgg ba noppi ñu ne ko dëgg la waaye yilifoo ma du ma ta xame sëriñ Abdul daana wax ne diggante def ak ba ku ngeen fa seen muy daagu du Abdul Ahad man damay def rek mbaama ba diggante def ak ba ku ngeen fa seen muy daagu du damay def rek mbaama ba sëriñ Abdul Ahad daana wax ne ku wax ne bala maa ànd ak nit mu mel nangam say ànd du bari ku wax ne bala maa nit mu mel nangam say ànd du bari sëriñ Abdul Wahad bul bañ ku la xeeb waaye bul nangu bul bañ ku la waaye bul nangu ku la yab sëriñ daana wax ne man bal bi may soxla aw ñay moom lay soxal aw fel man bal bi may soxal aw ñay moom lay soxal aw fel sëriñ Abdul Ahad daana wax ne man duma gaañ soxla man duma gaañ soxla dama koy faj benn yoon rek man duma gaañ soxla dama koy faj benn yoon rek gaañ soxla nag mooy nit ñëw soxla soxla su mu bëgg a faj soxla ñetti junni nga jox ko ñaari junni mbaa nga jox ko ñett rekk yam ca mu def ko ca bu xëyee du am dépasse dalay jox lu ëpp loola nga faj ca soxla sa denc dara bu subaa nga toog noppalu sëriñ Abdou Lahad daana wax ne barke boo ko rañaanee mu jatt la wërsëg boo ko gotandoo mu dëpp daraja boo ko jëndee mu xàcci jàngoro boo ko yar yaralee mu weer la ab juddu boo ko yokkee aw làmmiñ mu des nguur soo ko falee sa bopp mu folliku ak mbaadoolo soo ko sooxaalee mu gaañ la am am boo ko foyee mu yàqu waar soo bëggee mu àgg bu mu yaatu soo toogee te sa toog jotul danga nga jógaat say dëkk bu ñu xam sag nay sag njaboot bu ñu xam sag kañaan say soxna bu ñu xam sag ngot say tool bu ñu xam sag tayeel ndigal bu mu xam say itte sa kilifa bu mu xam saw fit loolu lépp ci ma yu am solo yi sëriñ Abdou Lahad daan waxtaane la bokk bi ñuy mujjale mooy sëriñ Abdou Lahad daana wax ne lu gën a yëkkati ko asamaaw aw fen lu gën a yaatu suuf dëgg lu gën a wow doj xolub kuy dajale alal lu gën a doy ndoxum géej doylu lu gën a tàng sawara xolub kuy bañ ku baax lu gën a tumuranke ab jirim rambaaj bu feeñ kon yooyu yi ay xikma la yu am solo yuñ jukkee ci xikma Serigne Abdul yi ubbee ko jataay bi dalale ko mbokk yi nga xam ne dañoo bég lool ci li Serigne Abdul dundal ci làkku wolof te ñoom ñiy yëngu ci làkk wi ñu bëgg a feelu sëriñ Abdou Lahad delloo ko njukkal ci ay bayit yi ay abyaat yu jëm ci wolof kon daal ni ñuy def rek mooy daal tàbb ci liggéey bi ñu ngi fi feggoog sëriñ Mamor Mbacke xamle diine ak sëriñ Mouhamadul Bassirou ak sëriñ Mouhamadul Amin Diop ak sëriñ Moustapha Diakhaté ak sëriñ Abdul Ahad Ndong ak sëriñ Fallou Kane ak Ahmadou Bass kon ni ñuy def rek mooy daal di tàmbali ci sëriñ Mamor sëriñ Mamor xamle diine sa euh, xarit ba sa sëriñ ba sa jur wa sëriñ Abdul Ahad loo bëgg a tàmbalee ci moom ngir delloo ko njukkal ak feelu ko ci liggéey boobu mu liggéeyal wolof liggéeyal ko làkk liggéeyal ko der bu ñuul liggéeyal ko jullit yépp kon sëriñ Mamor bismillah tafaddal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurril mayamin wa ala xayri xadimihi dhil hablil matin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmiddin noo ngi nuyoo rafet rafetlu bu baax a baax liggéeyu commission culturelle bi ci bisu Sëriñ Abdou Lahad bi ci waajtaay bi ak ci bis bi dee ndokkeel baax de ñaan yàlla defal leen tawfeex te yokk leen ñaari xasida yooyu wolof lañu def yoo xam ne dañ ko ci delloo njukkal di ko ci tagg genn gi ñaar yépp baxru tawil la genn gi ñu ngi ko def ci talaate jii nu ci ngoon muy fukki bayit ak juróom-ñaar gi ci des daaw dama ñëw fii ci exposition yi ma ko xoolee yéemu ma sàdd ñetti bay ci seen bilaxat bàyyi ko fi bareen ji na tey jii ci bëccëg laawoo Cheikh euh, Abdoulahat Jatara mu dicté ma ñetti bayit daaw ya ma yokk ba muy ñaar fukki bayit yépp ci tagg si Abdul Ahad kon ñaari xasida yooyu ñu jàng delloo ko ci njukkal ñaar yépp baxru tawil la njëkk bi ñu bi ñu defan kartaata da jawoon Abdul Ahad yal nan ko yàlla fayal moo indi war ma ci yoon wi tax ba kenn dunu këf sagal murid yi sagal Seex Bamba jox ko cëram bambam tawag gar ko tey màggal ko kenn du ko cof léppam mu jox ko Sëriñ Tuubaa di gont ak xëy mu jox ko Sëriñ Tuubaa xëy ngir moom te rëy bët sorib gis mës la tuutali jëf seetal lu bon fii ci Tuubaa bam ne boy yu mu yar murid yépp teyee leen nag ba kenn du ci ba kenn du ci dof dafay niteel nit ba nit doon nit na jar nite xam moo di kan xam fa muy aw dootu foo ak a kaf am ful la am fayda tey asgor su set di jubal waaye deng ci dëgg aw cim ngir di dox du tërëf gaynde ak la gu dàngan tax na mos la ragal ci dëgg lool yàlla ngay mer mbaa nga bég du ko saf day yar ci kàddoom di yar ciy jëf di yar ci xelam ba ñépp jab ba jub aw ci yoon moom rekk am jërëjëf jëfal ne Seex Bàmba jëf joo xam ne ñépp a ko gis ci dëkk beeg yoon wi ak dongoom yi fës na teluf fës na teluf jëmbat na pëstéef ci mboolem xol yi may nanu fit ci dund sëñ Bàmba biir ak biti kenn du ci raf ñabeeg njaboot te ñameeb yan yan bu réy bi mu fab te mësta yan ni ko diiram lim fi nekk xalif wóofoon na ñépp xajoo woon ñépp yaatu ca ak yi dëkkam mane ak bokkam yi ci yëfi yëf am lante ak bokki lislaamam yi fuñ mën a ne di leen teral kum ci gis daf koy cëral du ko cof jàmbaari lislaam la joj daa marke woon jamonoom ci ab liggéeyam ak it pëstéefu ak rëyi jëf meloon ni xaal ci ko jub xettar ci waa jubul nitax ci kii weex ci kii noo mel ak it saf yàlla na ah, meloon ni xaal ci ko jub xettar ci waa jubul nitax ci kii weex ci kii noo mel la mu saf yàlla nan ko yàlla fayal moom Cheikh Abdoul Ahad yéeneem juréy ja waxam firndeel ko ak la mu def sallaa wa sallama rabbul arsi malikuna ala nabiyi wa alin saaba yaa ko ca sof kon mooy xas dëggu njëkk yi bu ñaari ñetti bayit yi daaw la woon mottali gër tey tey ci bëccëg la jàmbaari lislaama ngi gayndeg si bi dëgg ngi soldaaru diine taraw nag ci lewet xari yar abdul ahad yi yett kenn du ci moom jom ak way ak fulla tey tànne fi diine di mbër gëmam nga seex bàmb ak pëstéef bu réy ba ca moom dootoo ko gis fenn sax ci dëgg tey sori nar xam-xam bu rëy baag ju doom baag lépp moom gisu ko gisul lu dul pas-pasuf ak taalibeem bu dëgër jullit bu wér la te des gor tey murit bu dëggal du boole Seex Bàmba ak tus fam ko teg la ko ber ab delluwaayam di alxuraan mu dégg ko lool di génn sew sew ya tas maanaa wax ca lu wér jëfam yi ak wax it ñooy màndaxoo lu mu wax nga gis ci jëmmam lu koy firndeel di jëf la ko war loola di jullit gi ngor gay képp koo mën a doon su ngeen di jëflante moom moo lay jariñ du la lor sa xàq daf koy matal bam mat mu dolle ca du doon sa xàq ngir ak baaxam lii ya di ngor murit ga mooy fa mu teg Seex Bàmba gëm ko bu wér yaakaar ko wóolu ko tey jëf ngir jëmam di ko xër jëfal ko loo xam ne kenn dootul fi jëf lu ni mel yaakaari Seex Bàmba joojee day tësul nde du wor colam muriite jëfam ak ay waxam murite defar murit yi ba ñépp ay murit yu dëgër aaral sëriñ Bamba dëkkam bii ci lépp lu bon garoon ca it bakkanam bam set fi wecc mu dér toppoon magam ya ba làppoon seen gërëm ci jëfam Seex Mustafa ak Sayxu Faadil ñii la roy ba di mbër safooy rakam tax mu jël leen ñépp taf ci jëmmam lu ñëw mu bokk ko ak ñoom seddi leen cëri cër feeñal sëriñ Bamba bañ xam moo di kan mu jëmbët ci yi bëgg ko ak xeeñ aw banam aw yi ngir moo tax ba kenn yebul yoon wi te kenn yebul it yebulit muriidi sëñ bàmba yi ak sag bu rëy bi ñu yor Cheikh Abdou wàcc nga jaajëf def nga yow li la war na yàlla dottil la ay waamee ngërëm ne xasar kenn munta lim say ngëneel naa xat mooy naa xat mooy wi te ñaan bor yàlla fay la saxal ak lépp li nga fi defar jullil ci xayril wara sëlmal ak it ci ñoñam ak i saxaabaam ngërëm ak i saxaaba ngërëm Seex Bamba mi sunu cër jullil ci xayril wala salmal agit ci ñoñam ak i saxaabaam ngërëm Seex Bamba mi sunu cër asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ Mamor xamle diine fa tabaarakallaahu li nga indi ci sa maam sëriñ Abdul Ahad am na solo lool ay jikkoom ak i meloom ak ay jëfam rek nga nu indil noo ngi ñaan yàlla nu yàlla fayal ci loolu nga defal sëriñ Abdul Ahad dañ ciy teg sëriñ Abdul Ahad Ndong moom itam mu indi lan la def ci turandoom sëriñ Abdul Ahad Ndong bismillah sëriñ Fallou Kane mi ngi toog Ahmadou Baas mi ngi ñëw ak sëriñ Alaaj Njaay Seex Ndindi ak sëriñ Abdul Ahad Ñang kon sëriñ Abdul Ahad bismillahi ci lay jëkke man yërëm kon ba ñépp di ràng bismillaahi ci lay jëkke man yërëm ba ñépp di ràng cant yépp ma jël ne ko am moo ma may xel mu sell mu rong julli ñaan ci yonent ba dug gon ca xunti ma picc ma tong nuyu képp ku toog di ma gis ak ñi may dégg may si ngi song afrika yi sama dënd te man sénégala di réew mi ma lang Jurbel lay gox bi boot sama dëkk bi Mam Bamba sanc mu ñoŋ jarta laaj tur wu màgg la Tuuba sama quartier mooy këru ñaŋ may ko ñuul dib jullit dib murit abdullah tuddullah sant ndong euh, maa ngi nuyu ñépp di leen ziar di am mbégte ci eh, li nga xam ne euh, waa commission culturelle taxawal nañ ko lu mu doon loo xam ne lu waroon yàgg la waaye ñu ngi sant yàlla ba nga xamee ne ñu mel ni ñoom sëriñ Abdoul Ahad Ka ak ñi mu àndal taxawal nañ ko ñuy ñaan yàlla mu sax dàkk toujours ñuy gën di indi ay yeesal yu ci aju euh, xasida gi ma indi itam jagleel ko sëriñ Abdoul Ahad sama turandoo xasida la goo xam ne defoon naa ko bu yàgg xam naa soññ nañ ma ngir ma gën cee bindaat ndax sëriñ Mamor Mbàkke xamle di ne ci xasidaam yooyu nga xam ne def na ko ci Baharul Basit mu am solo lool euh, waroon na ma itam ndax man genn xasida rek laa ci bind waaye danaa fexe euh, chaque année rek ma def ma jéem cee def benn ndax lii moom lu am solo la dana dem ba doon ay jataay yu yaatoo yaatu euh, la goo xam ne itam bi ma koy def baxaru bi xaw ma ko woon Euh, jamono yee rek laay gëstu ba gis ko ci enroute waaye bi ma koy def damaa defoon ne man maa ko créé woon waaye ci laa liir enroute ba am ku mu dëppool fi ma ko jële mooy ñi daan kuule bu njëkk ñi daan kuule di sànni naan yëkk day ñeme njam mën na njam ñeme njam yooyu laa ko jële woon mais loolu bu ma demee day tolloog fan yi lun fan yi lun fan yi lun fan fen lun def loolu defe naa mu tadaarikul majzu lay doon en Serigne Moustapha ma waxoon ci sëriñ abdul ahad ziyaar naa la bu wér la nga daa wax ba tey mu ngi dund di wër sëriñ abdul ahad ziyaar naa la bu wér la nga daa wax ba tey mu ngi dund di wër sama xel mi du jóg ci sa jëmm di bég te di yéemu ci xikma yu wér yi nga teg ñàkk caaxaana tax mag du fo sa kanam ñeme dëgg taxoon ku fay wax wax lu am nit da daa ñëw ci moom di ko wax ay waxam am lu koy déye naa li muy wax du lu am moo amoon ful la am fayda gëm boroomam nangu ay dogalam te du def ay mbañam seti wax weri wax dëggu wax xam waxin daana jëf te du wax kooku moo xam jëfin kooku moo géeju woon ci ulum yi fi won daana muñ te du tooñ te fi daa tere mbon alquran la mënoon te xadis la xamoon kooku moo fonk woon xasaayit dañu daan digal jaamu borom te it daañu tere jëf ju bon bun dajee ëllëg bul ñu mere mosuloo bëgg luy tilimal dëkk bi bu nga leen gën a pënd bi su masaa wax ba baax ñépp yéemu mucc ndax da dëgg moo ko ñoroon lu ko moy du ko wax jaaxaloon na ji daa barma barma lu far wax ja daa masa xóot ëmb maanaa yu wér tabeyaatu sa war xelu xam la ko war te moo noona teral donn mbër donn mbër njabootam gi fi tey wane nañ lu li bala la gëla man luñ waxoon ci kéwél kéwél du tëb jom dëbët fonk woon na nitam daana fug li du fonk woon na ne tam daana fuglu di wër moomelam ngam yoroon di wër moomelam yoroon moomeloon ni Omar tur wa sax ku ko man man gu sellu gu wér te xeñel na la lii jar na jëm ko ba dër ku ko tudd bégal ku ko bëgg bégal ku ko daan liggéeyal mucc ngeen ci mbugal li ci des mooy dëggal lim fi daan dëgëral te di wéy ci ndigal topp yim fi tëral maa ngi ñaan yàlla buur ay du dugg sa kër sa njaboot gi fi des gudd fan dëkke wér sëriñ abdul ahad maa ngi ñaana ci buur yàlla tas ñu ci say barke mbakke ñu wér sëriñ abdul ahad turandoo walla way turandoo su wayee turandoo dafa war asalaamaaleykum tabaarakallaahu fa tabaarakallaah sëriñ Abdul Ahad Ndong ci way wu am solo woowu nga defal sa turandoo waxal ñu ci ay jikko yu am solo ak melo yoo xam ne noonu la meloon yal na la yal na la yàlla fay ci barkeb sa turandoo def la yow itam ngay mag mu barkeel kon ñi ñëw ci sëriñ Ahmadul Bachir Lo moom itam ngeen xam xam ko ci tool bi muy bay waaram bu baax ci làmmiñu wolof ah ahmadul bashir kon bismillah tafaddal a'uuzu billahi min alseytaani irrajim bismillahi irrahmani sayyidina wa mawlaana muhammad ibni abdillah wa ala aalihi wa asxaabihi wa man waalaa assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di jiitaal ci siyaara boobu sunu kilifa gi nga xam ne moo yilif kër gi di sëriñ si di Mbàkke moom Cheikh Abdul Ahad tey ñaan sunu boroom mu yokk fanam wéral yaramam barkeelu dundam ci darajay maamam damay jégalu bu baax a baax a baax sax xam naa ne sëriñ si Abdou fi nga ma dugal dana xaw a kiimaane te waxoon naa la ne damay damay ñëw ngir teewe si jataay bi li dal sëñ Maam moo ma xaw a dal ci takkusaan bi nga ma woowaatee ne ma faw danga maa def jëfi mag sax dama woowoon démb ma ne ko daal danaa ñëw waaye damay teewe si jataay bi sànq ci tokkusaan mu woowa ma ne asalaamaaleykum rek mu ne ma li ma lay wax daal mooy jataay ba maa ngi la koy fàttali guddi la daal di coupé téléphone am nga xam ne aw ma wenn lay wu ma ko jox moo tax ba nga coupé rek ma ma kor ma lii waaw daa mel ne danga ma ne woon fukki bayit ak ñaar moo tax ma def ko fukki bayit ak ñaar jéggalu nag sëriñ Abdou Lahad way wu ko nuru mënuma ko waaye li nga wax ma jéem ci dama wax ne jullit bu rëy gëm te dëggu rafet juddoog tur ak jikko ba xam sàmm wegu te ay jëfam rëy te bu rëy gëm dëggu rafet juddoog tur ak jikko jàng ba xam sàmm wegu te ay jëfam rëy te sagu te mës la tooñ buuru ba ko moom sakkaa mbindee fi jamanoom àdduna jépp xam soloom foo ko tuddeet ñu bàkk ko mu yaatu xel rafet la nangu dogal taqoog ndigal xami ndonoom daa ko dundal menn mbokkam yabu ko kookale moo sàmmut cëram rafati jëf yaatu ngërëm abdul ahad moo diw turam ndegam xamoo ko laajte ko moo gëm sëriñ bi gëm gu wér xam lam bëgg ak lam bañ bu wér lu ne mu def ca la ko war waaram ci tool bi bay na ko moo gëm sëriñ bi gëm gu wér xam lam bëgg ak lam bañ bu wér lu ne mu def ca la ko war waaram ci tool bi bay na ko xilaafa moo nu ko xamal ba tax na kenn du nu jommal ku def leneen lu nu xamul bun waxul it ñu ramtu ko xilaafa moo nu ko xamal ba tax na kenn du nu jommal ku def leneen lu nu xamul bun waxulit ñu ramtu ko ca ak ayam lanu gimmi moo nu xamal ba nu xami dolli nu fit may nu ñeme ku mel ni moom giseesu ko ca ak ayam lanu ñoŋi ca ak ayam lanu ñoŋi xam li nu doon di ko béggee te kenn du wax lu nu soge ku ku masa tooñ nu yar na ko ca ak ayam lanu ñonge xam li nu doon di ko béggee te kenn du wax lu nu soge ku masa tooñ nu yar na ko taxoon na kenn dawu nu yàpp bay fabi lor di nu ko xëpp ci ab loxo mi lanu ngëb moo man njaboot te ñame ko diisoo la daa jiital bu wér dooga dogal ca lamu nar la daa jiital bu wér dooga dogal ca lamu nar bala waxit xam ca lu wér du wax waxaat di weddi ko li lee taxoon mu saf ñoñam lu mu waxitam nu ne naxam fu mu joxe ñit nu faf fa jëm fu sori loot nu sori ko jiwaay ku nee ngi laaj kemam te kenn du gis ku ko fi xam kenn la woon duutu fi am yàlla na buur fa yal ko wasalaam fa tabarakallahu fa tabarakallah cheikh ahmadul bashir Euh, ñu jox sëriñ Fallou kan moom it li mu indi ci sëriñ Abdul Ahad assalaamu aleykum bi bahrina uxayikum faalamu annama ismu bahrina huwa alñukku failun failatun mustafilun mustailu baxru bi dafa bokkul ci baxru yin xamoon jëkk sëñ Mamar mu sëriñ ji li gànnaar dana ko nuyu teg ca abdulahat ka basiiruloo mii fi dikk bàyyi lamin abdulaat ndong di ay sooke yu gawar mustapha jaxate dawalkat la bu mat sëkk fàllukan di suwayhar di seen donga moo ko bind ñaan ci barke sëriñ abdulaat ndab lu ñépp sukk rewtu gopp wolof sof alleeru way yu rafet way ci kii di sëriñ abdulaat mbàkke lépp dëgg baxaru bi ki ko génne abdul ahad ndong la tudd turandoo la ci baylaat ba tax mënaan naa ci dikk kon mbokk yi ni ko li dal ñu bare rekk ñoo ñu dal ndax yéexa yëg gi xasiida giñ way sëriñ Abdul Ahad nag mi ngi doog daanu nii yaakaar naa ne fukki bayit la ak juróom ñeent léegi lañ ñu ko wax rek sëriñ Abdul Ahad moom ni ko ñépp waxee dafa neex a way moo tax defe naa ci baxaru bi tawil la ma wax ne moo man fàllu tee maa jóg segam Bàmba moo ma ñor te way gaynde gi tax tey lu di bukki jóg tuuba moo man fàllu téema jóg segam bàmba moo ma ñor te way gaynde gi tax tey lu di bukki jóg tuuba sëriñ bàmba dëkkam bi lu dul diine bokkuloon ci biir waaye daa am ñoñ xamuñ dëgg luy tuuba sëriñ abdulaan mbàkke di kiy gaynde moo fi toog xilaafaam gi moo ñëw rekk setal wécc luy tuuba dafay fekk gaa yuy tux te fi carte ak di dam di football mu am ñuy naan ba ñëw dugg biir Tuuba mu ñëw dal yii nii tey ku daa def ko nang ko ba te bakkan bi kat laa teg ci lii ngir mu dañ Tuuba wallaay fulla ak fayda da koo donne woon ci baay te am fit wu rëy lool tax mu man jiite waa Tuuba ku Sëñ ba doon sa baay ku Sëñ Bàmba doon baayam du tiit mukk wenn lor sëriñ Abdoulaat Mbàkke ko wax fii ci biir Tuuba dadaa génn tey wër ngir di xool dëkku Bàmba bi xilaafaam gi daa dundal cosaanal sëriñ Tuuba murit yi daleen daan woo di leen dénk ay ndigal di leen aaye ay naawteef te ñuy topp sëñ Tuuba ci lii rek la sax ci lii rek la xëy sax moom ba xëy ñibbi àjjanaam liggéeyam bi moo tax tey ñu xemmem dëkkub Tuuba walaay Mbàkke yow mi kay li war lépp yaa ko def ku teg bët Sëriñ Abdul Ahad gis nga Sëñ Tuuba ki lee samp daaray kaamilin muy liggéey bu rëy jumaa ji da ko yaatal mu bégloo Sëriñ Tuuba xanaa kon du doy ñun xanaa kon du doy ñuy yéem Sëriñ Abdulaat ñu roy te ñuy moytu ñun ñiy jëf lu rëy lu muy aaya biir Tuuba xanaa kon du doy ñu yéem sëriñ Abdu nan ko roy te ñuy moytu ñun ñiy jëf lu muy aaye biir Tuuba dadaa wax ne ñun ñii dey murit lante saa di xit lanuy ñaan di doon faw wit ba xëy wuy ji sëñ Tuuba ndegam doomi sëñ Bàmba taxaw wax lu mel ni lii xanaa kon ku dongam warul def leneen Tuuba murit kon bu nuy nax noon sunuy jëmm def ku réer nanuy xam ne lut ak taalibe du saf tuuba nanuy ngëpp ci buuma ci ay nuy si ci buuma gëm te ràbboo ci ay ndigal ba doon ay murit saadix di noyyee sëriñ tuuba ma julli tey sëlmal ci gi ngën ji ab yonen te ñaanal kuddib jullit mu ñëw jof si fi tuuba salaatan wa tasliman ala xayri xalqihi bi alin wa asxaabin ci barkeb Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah tabaarakallaahu Serigne Fallou Kane yow itam indi nga lu am solo ci baxaru tawil boobu nga def daane ko Touba mu mel ni yow da dugg ci liggéeyub yëpp Abdou Lahad ci biir dëkk bii di Touba nga xam ne aw waar la woon ci waaram yi damooy mooy fexe ba dëkkub Serigne Touba bi set ci lépp lu dëppoowut ak ni ko borom bëgg jërëjëf ci way wu am solo woowu nga xam ne defal nga ko Serigne Abdul Ahad yàlla na nu yàlla fayal dañuy ñëw rekk ci sëriñ Moustapha Jaxate moom itam mu indil nu li mu def ci sëriñ Abdul Ahad euh, moom itam ñu door a ñëw ci sëriñ Mouhamadul Amin kon sëriñ Moustapha bismillah tafaddal ci fi mbokk yi taxawee rek fas yéene indi ay seede ci jàmbaari jàmbaar yi sangub sang yi ak Cheikh Abdoul mu mel ne rek li ci xaw a kii tuuti mooy ba bi ñuy toog li ñu waajaloon mooy xasida ak ndax xamuñu woon bu wér na jataay bi dañ koy jagleel taalifi wolof yi waaye comme noonu la demee it danañ barkeelu ay abiyaat ci wolof door a digtal mbokk yi li ñu indi woon muy xasida ga arab ñu wax ne jàmbaari jàmbaar yi Cheikh Abdul Ahad ku ko xam xam ko ci fulla ak ngor ak jom fi du rëy wa mu xam jàmbaari jàmbaari Cheikh Abdoul Ahad ku ko xam xam ko ci fullaak ngor ak fitam wu rëy wa mu xam daaroy ci baayam ba Cheikhunal Xadiimi ak magam ja Cheikh Moustapha ak Sëñ may xaritam ñu fàddu moom mu ne cas seen yan ya boole ko dem yeesal ko yéegal ko péey bu mag ba dolli ca ndam jubal na ndaw ñi dajeek moom mag ñi soññ na leen ban mel na bàmb bëggoon ci lii la làqi ngërëm kon tey ku nekk waroon a saddi way di ko kañ laa siyamaa ñun ñi toog fii nii ci buntu këram na yàlla fay ko te dooleel kii di ab xalifaam sëñ Sidi Mbàkke te may ko wér te yokk fanam na yàlla fay ko te dooleel kii di ab xalifaam sëñ Sidi Mbàkke te may ko wér te yokku fanam màggal gi nii mu ko def bégloo na bépp murit fit ak jom ak fula ak faydaa ko may li mu am màggal gi nii mu ko def bégloo na bépp murit fit ak fula faydaa ko may li am waa commission culturelle bi ñoom itam li ñu def ci bis bi jar na ku di waykat mu gàddu xalim waa commission kulturel bi ñoom itam li ñu def ci bis bi jar na ku di waykat mu gàddu xalim Cheikh Abdoulaat Jaxate ko jiite def ci lu rëy ànd ak abaadala yi ñoom ñëpp am nañu ndam xam naa bu ñoo mayoon tuuti ma jëm koo àggale waaye comme micro bi agsi na ci noonu rek ñu dagg ko foofu te indi li nga xam ne moom la waajaloon <coughs> muy xasida ak إن ابن شيخ الخديم عابد الأحد هذا المزايا وفاق كل ملتحد له خصوصية عظمى بمظهره بعيد غيبته أمرا من الصمد في بلصص لاح في جاريم منبسقا من الأكارم أهل الفضل والرشد axwaaluhu surafaau saadatun urifu fi ardi mbaakol usaatal qawmi bir rufudi qawmun arumatuhum shaahat naqaawatuha kashamsi tazharu lil aynayni min buudi kal gaysi in wahabu wal laysi in wasabu li rad'i muntahikin wa muttahadi wal kullu minhum abiyun baasilun fatinun yaciisu min cirqihi laa min firan wadadi fiihim tarabbaa xariisan kulla aawinatin ala iqtifaa'i alxadiimi saaxibi almadadi xatta xadaa nusxatan baanat mutaabiqatan lil asli fil kulli lam yanqus wa lam yasidi xatta xadaa nusxatan baanat mutaabiqatan lil asli fil kulli lam yanqus wa lam yasidi xayaatuhu wa mamaatuhu taxarrukuhu sukuunuhu kulluha lilcheyxi fi abadi asdaa lahu xidmatan biha taxaqaqa ma rajaahu minhu bila shakkin wala fanadi fa fi xilaafatihi xamat tariqata min kaydil aadi wa min ducfin wa min awadi wa saana tuuba min al adraani jumlatiha wastabdala alwadaa min fawda ila sadadi wa zaadaha sharafan min baxdi ma labisat kadaari mayyata bil alyaai fassanadi fariha man qasadu bissuui qil'atana ka sallatin ajfalat min nab'ati asadi wa huwa saduqu amiinu fi taamulihi maa aljamiihi wala yalwi ala ahadi afdiihi min batalin in halla fi adilin in halla fi ajalin maa kaana min uqadi maadil basirati laa tanbu madaaribuhu sabtil azimati laysin zaahiril jaladi saafi sarirati laa tuxsha qawailuhu kaafin nawaibi nadbin taahiril xaladi xaysun afaada man istafaada duuna miran laysun abaada idaddahaa bin nakadi sifa suduuri diyaa udduuri jumlatiha badril buduuri malaasi kulli muctamidi haadal kamaala kama faaqa rijaala kama jaasal majaala ilal mawla walam yahidi saqaahu rabbul wara min faydi rahmatihi fi maqcadi sidqi bil xusna wa bisayadi بالمصطفى وبمن آووا ومن نصروا أولئك القوم من ردوا ذوي الفند عليهم صلوات لا انتهاء لها مع السلام بلا حد ولا عدد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين tabaarakallaahu macha allah sëriñ Moustapha Jaxate ci xasida arab gu am solo googu nga xam ne defal nga ko sëriñ Abdul Ahad génne ci ay jikko ak ay melo yu ama am solo ak iqtibaas bu am solo boobu nga xam ne def ko ci bu naafian boobu sëriñ bi kii am na solo lool yàlla nanu la yàlla nanu la yàlla fayal te guddal saw ci barkeb sëriñ Abdou Lahad ñi ñëw ci sëriñ Mouhamadul Amin jóob moom yàgg nay way sëriñ Abdou Lahad kon sëriñ Mouhamadul Amin ah yow xam naa li nga indi ci ay abiyaat moom mënee su ko sotti lépp waaye yaay xool loonu ci indil ci sëriñ Abdul Ahad bismillah ma bàkk man ñàkki caaxaan ndaxte daa xëyuloon te yi xëy nag mu dab leen romb leen njëkk leen ma bàkk man ñàkki caaxaan ndaxte daa xëyuloon te gaa yi xëy nag mu dab leen romb leen njëkk leen lu kenn nit mu musa def Seex Abdul Ahad ko def du nit ku ñuul du ko weex duy walli yoo ki yoneen loolaa di lan moo di nit ñi ñëpp bàyyi lu bon te xam ni moo ko fi jëf bàyyi laat bëggul waxi neen doo dox lu mat kilomètre ci réew yi yépp a ci yam te gisuloo nit ku tux ab maal boro walla pon mbaa sax mu mànn ci ñollam mbaa mu naan fi sëng mbaa sax mu log fee ay bon ma sox mu log fii pion bon Cheikh Abdoulaat bale Touba dàq lépp lu bon sellal dëkkam bi ko bàyyam dénk génn fi xiin ak yi tamaaki sabar ak fecc xeeti misik te wuuf rakkam yi di faj seen aajo teg nu ci yoon ma wax la tuuti ci ak soppam sëriñ bi nga xam ni ab kemam amagul nag fii amul ci feneen kenn mësu la laaj milliard ak genn wàll mu mat ca ay bis te sa doom benn dërëm du jëfoon diirub li muy dund doomam jenn nag yiliful benn tabax mbaa terrasse mbaa bu yàpp bu niin kii xam nga xóorul njabootam bàyyi tool bi mu booy koo gis dimul soxna yaag doomam ya ñoo ko dogoon kenn mësul gis nit ku jël rakkam ya def ko sëriñ te rakk yépp la jël teg leen ca kaw di fi leen moo njëkk a jox doomi sëñ Tuubaa yi dund bu doy te mus la def dara yit loo xam ni wooyiwu leen mag ñi daroon sëñ bi it ñoom ñépp sant nañu jigéen ñu baax ñii di waa barsàq fàttewu leen ñun ñii di sàmba sogum gay si it caru cëru nan am nan ci bàyyi laat danaa wax cëri nag yu mu doon lii mu ne su ko ñàkk sala ndax benn naar la boo xam ne daf daa ñëw ci kër Sëñ Blaat am bis mu ñëw nii dama leen di cax su ma leen caxee fii juróom benn weer danaa fi desaat benn da ngeen cax cax mu ñëw bind ci kay wa man lahunna wa man lakum wa man lahumoo daa dem juróom benn weer yi ñëw wa man lahunna wa man lakum wa man lahumoo ca déwén juróom benn weer jot mu ñëw ñëpp ñu lii xamuñ ko mu ne wa man na kan mooy dimbali yaay yi jur jigéen ñi wa man lakum kan mooy dimbali bàyyi yi nga xam ne ñoo jur jigéen yi wa man lahumoo kan mooy dimbali ñi war a denc jabar célibataire yi nga xam ne mënuñoo denc nee na mu euh, jànq ji ak seen bàyyi ak ak ñi leen war a yor lool loolu la naar ba wax moo tax wa man lahunna wa man lakum wa man la naar ba wax boo xamul luy lii ma ñëw fiir leen na mooy jànq ji ñàkk yi jëkkër bëgg a sëy lahum di seen bàyyi lakum mooy góor ñàkk ñi can kenn mës la gis nit ku may ñeen fukki jànq jëkkër ci genn ngoon teg ca berndeel leen fajar ba ca ngoon ma wax la it fukk ak ñaar nag yi am ci ayam ci fii di Touba mu doon ay ndam yu sëñ bi bëggoon ci ayam kat la doom sëñ bi ràññeeku fés lu jiitu muy jiite ñaar ak ñett ñoo ci fésoon ci ak ayam it la Touba set ci lépp lu bon lu jiitu muy jiite Touba ak Kayaara yamoon ci ayam la Serigne Touba di am file kër lu jiitu muy jiite mbaarum sëñ bi sax amuloon ci ak ayam it la daaray kaamil it am lu jiitu muy jiite gaaluk sëñ bi moo fi amoon ci ak ayam it la Touba yokk wàllu gu lu jiitu muy jiite Touba ëppuloon ci rongeen ayam lanu am korniis ak i autoroute lu jiitu muy jiite yoon yi yëpp ñàll la woon caag ayam yit la waa barsax sant bu wér lu jiitu muy jiite waa barsax féexuñu woon caag ayam la jumaa ji yokk neex a jullee lu jiitu muy jiite jullee fii lu metti la woon caag ayam yit la móodu móodu yokk bu wér lu jiitu muy jiite Gambie Côte d'Ivoire a xewoon ceeg ayam yit la ceebub jën di daj fu ne nag lu jiitu muy jiite ay benn yu néew la fi woon ceeg ayam yit la sëddi sëñ bi jópp aji lu jiitu muy jiite aslim nag su tuut la fi woon caag ayam yit la forage yi di dem ba fukk lu jiitu muy jiite as forage la daaru manaan te kat bu forage ya paanoon tuuti koy xaw a yëg forage su bàyyi laat bu paanaa tuuta fiy mën a naan ma wax la tey xikam yi bàyyi laat nga yéemu ci tey nga xam ni luqumaanu haasal xasri rekk la woon nee ñett moom ku ko bañ yett a ngi nii bu ko am mooy jaam jabar doom bu ngeen teeloo ma teqale leen ku bañ ku lay bañ de am jaam ku bañ ku la yab bul wut jabar ku sa wax sax doom ya daa màgguloon ku bañ ku lay bañ de am jàmm ku bañ ku la yab bul wut jabar ku sa wax sax doom ya daa màgguloon fi ne boo amee doom ñaar doom yi dañuy wax kii wax su ko defee dañuy naan pavé soof rek su ko defee sa wax du saat te daana wax te daa waa daxal yëdd ni Pastef ak jege nañ ci kaw te wuute ci biir Pastef a ngi téye leen te daana wax nag ni Pastef ak plan jige nañ ci kaw te wuute ci biir Pastef a ngi téye leen nu muy def Pastef ni pël plan ni meng nii la demee ngir yàlla kenn mënu koo nax gaa yi tuubi ji leen ne yàlla yàlla daa bind yet dellu sàkk yet fab yet def ko ci ñaar déglul ma ràññali leen mooy doomu aadama ak jinneeg malaayikatu mu sàkk bànneex naqar am xel te séddale leen bahiima am na naqar bànneex te ñàkk na xel malaaka am xel te bànneex ak naqar leen moom doomu aadama moom kat yett yëpp la am ngir am na xel naqar bànneex de boole na leen tey bàyyi maa ngi ci suuf malaaka nekk ca kaw day toog fi suuf mbaa mu jóg jëm kaw du jekki feneen nit nag bu toppee ci bànneexam ba bàyyi ma la ci am xelam mën na caa dab ñee ba far kawe leen danaa fi tàbbal waxi sëriñ Basiiru ba tey ñoo bokk bàyyi bokk am xel sëñ bi sédd na leen sëriñ Basiiru da daa wax ñaari raa ñi ngi nii te seeni doom ñaari raa yii rekk rekk la doon rëy rëccu réew rus ma yokkaat miim ci wax jile man muñ mucc lii daal la nekkoon nag li sëñ bi waxoon léegi ndam yi xel mën a sàcc yi root nde am na yeneen yoo xam ne néexu la wax ngir mbir yu bëri la woon bisub juddoom la sëriñ Touba day wax ne dama yaakaar ci moom xam nga nag yaakaari sëñ bi du nen lee tax mu jëf nag lu taa jëf wax lu kenn jëful moo yegg yeggale ñim àndal ba xettali leen bu yàlla dee fay jëf yi nit nag ci nit li ma xam sëñ sii di mee ki rakkam lab nañ ci lim fi jëfoon gannaaw dafay xettali jàmbur ak yi dëkkandoo kon doom yi ak soxna yeeg dongaam yi kenn waxu leen la Matlabul Fawzayni li mu wax moom de moo di mbiram ngir ñag na Touba jagal Touba ba kenn yebu leen murit gi fu mu àgg tey jii nag ci réewi tubaab bàyyi laat di jëf na ca kem kattan ba xetil leen bàyyi laat di mooy ñàkki caaxaan dëgg rek la bëggoon ki nekk buur ak ka doon baadoo xamewu leen nee moom saxaar la ci ab raay rek lay mën a dox te raay bi mooy jaamu yàlla ak jëf li sëñ ba bëggoon moo tax ba waaj a dikkee di fecc rek fa këram bàyyi laat ne waaja li ngay def lan nga jublu ci woon waajooja wax ni dafay feeñal mbégam ma mu bég moo tax ba muy fecc lii rek moo am ne du leneen sëriñ bi wax ko ni boo faatoo ba am ñetti fan nga xam ne mag fecc fa wàllam fecc teel na ci yéen sëriñ bi wax ko ni ba boo faatoo ba am ñetti fan nga xam ne nag mag foddu wàllam fecc teel na ci yéen man abdulaat da jubal laay def damaa bëgg a dem ku bëgg dem nanga nga fab say tànk teg ko ci yoon mboolem li nit ñi di sàbbal yàlla ak di sikkar ak lim bu toll ni feppi suuf yi ak asamaan yal na ko buur soppi muy xéewal ak i këri kër ca aljana jox ko baylaat jox ko junni yeneen ci daraja yi ngeen ji mbindéef ak sëriñ bile ak mbooleem ko xëy mas ñaan ci yàlla buur bi anuyin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yal na la yàlla dëgëral yokk sam xel. defal la kàttan ci barkeb Serigne Abdou Lahad mu mel ni Ahmadou Bass ngi woote ne daanaka agsi na waaye nag sëñ lemin ni ñuy def rek mooy nga tollantil ñu wu ñaareel wi waaw tollantil ñu wu ñaareel wi rek bu ko defee ñu daal di ñu daal koy sof ci Serigne Abdou waaw xam naa Serigne Abdou maanaam ay xeer dafa mel ni ay xeer laa sànnoon ci njëkk bi bii nag ay ay ay birig la kon nag bu soobee yàlla lañ ma ci fekk rek nga fekk la ma ci ndax damaa wax ne yàqu yàqu jamono sëñu blaat dafa nu mu ko defare woon ndax bi mu fi nekkee la jamono yi gënoon yàqu ndax booba Tuubaa loolu lañ fi daa def lim ko defar nag mooy de luy defaru bokk gis nga ak bokk boo ko defaree lépp defaru bi mu ñëwee dafa jël sëñ Abdou Khadir ñoom seen téeméer at yi laay wax fii ci lañ defar lépp ba lépp jag kon yaakaar naa bu ñu àndee rek xol yi ànd lépp jag kon ma misaal ko ci sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou xam naa ne baxru kaamil la waaye ni ma koy daajee man day naqari maanaam gars yi basir sax lañ ko jàppee waaye kaamil nag laa jublu ñii ñaari seex lañu luñ defaa ñooy ànd ko lu yàlla ak yoneen sëñ bi bëgg ñu indi ko ñoo jàpp saytaaneet ci Tuubaa ñadd ko ni ko deq rey te sëñ bi bëgg ñu indi ko seex abdu laat seex abdu xaadir gopp rekk la ak ëllëer seex bamba jàpp ca saytu ko àndum musaak haaroona bii ak bob na bii béeg baabakar bee ànd a ñëw dugluur ko seex bamba bég na ci ànd bii ndax ànd bii la bëggoon ñu toog toog nañ ca lam bëgg am na ko téeméeri at lañu am ci ren miilaadiya 914 2014 kaay wàññi ko téeméeri jëf lañ jëf ci Touba ak yeneen yoo xam ne jëf yi ñu bëggoon la ñu jox nu ko day njëkke seeni jagle nag soog leen wax li ñu jëf damay cof cooja téeméer tudd ko am nañ ci yoneen jagle yooy kii moo ko am kee am ci sëñ bi jagle yooyu kenn am di ko Seex Abdulaat at yi mu am ak Seexul Xadiim lim baa yemoo mag ñee ko wax ñoo fekke ko Cheikh Abdoulaat it waajuram Mariama la Cheikh Bamba Cheikh Bamba it nag waajuram Mariama la Cheikh Abdoulaat waajur wa Mariama gis nga ko Cheikh Abdou Khadir it sunna yonent bii moo man ci tool bii kenn nit de du weddi ko yeneen ba it waajur ma ba tey mooy Amina Cheikh Abdou moo meññi ko Cheikh Bamba wax Cheikh Abdoulaat ca bisub ganeem moom àddinaam muy wax ju rëy ku ne dégg ko mooy la gan gi dama yaakaar ci moom yaakaari sëñ bii nag du tas ku ne xam na ko Cheikh Abdou bis ba muy feeñ sëñ bi wax maam na yow mii koo dajal dañu ramm ko moo tax ku faatu ñu woo ko ngir mu jullee ko ndax mu amum ramam ku juddóot ñu woo ko mu tudd ko waccal wasiir yi muy aqi haaroona mii Cheikh Abdoulaat ni mu def rakkam ji faw xa ko usdud bihi asri wa asri ko amriya Cheikh Abdou Far fab léppi diine ji xëpp ko ni ko diine ji loo ciy xalaat rek na ko def du def lu dul di ca sant ndax yow xam nga ko fulku shariati déqi feeyi kenn duutu lab fulkul xaqiqati déqi ñoom ñaar saytu ko li taxoon mu fab li taxoon mu fab mbiri diine ji nag jox ko ko tool bee taxoon te li koy setal moom war na ko ngir maskani sa minal fu jaari nag te mu gis ci tool bi lu mel ni ay golo yàq ko te gannaaw nga xam ni sëriñ bu mag bi da koo sasoon te sasam du booy mu ne booy bu dëng na génn ko lu yónneen ba bañ ak saa bakkan du ma kenn mu ko fiy defaat ku man di doon dama génne ko moom am atam daa yitteem gàddu yatam yitti leen ca bañ nooy ner kenn defatu ko mboolem ku lëj fii mbaa mu léej mu lijjanti ko mu ne jëdd yar ba ka jàdd rekk limbaar ko ko ba ñu jàgg mokk ko ba mel ni der rekk nag mu dër mu der ne na mel ni ndar tuubaa ci yaatu ba ñu jàgg mokk ba mel ni der rek nag mu dër ne na mel ni ndar tuubaa ci yaatu ba ko waaye nag dafa am lu am lu ca am lu way xam yépp xam gaa yi di lasaraar nañ ma déglu te jàpp ko lii may wax nag du ma ni sëñ Blaat du waxee sëñ Blaat samay wax la man Modou Lamine Diop ndax kilifa lañ yoo xam ne ñoom seen i wax seen mbir ëppante naa li ma bëgg a wax waaye nag yi lasaraar daa am lu ñuy def yoo xam ne dañ koy def suñuy lasaraar ëpp sëy ba mujj ci noof sëy booba day tas maanaam bu fekkee da ngaa bëgg sëy bi tas rek na doon ñaari nañ noof sëñ Blaat nag bi muy saay-saay yi nga xam ne ñu diggoon waa ñu bëgg fee tas moom da leen tas ñetti noof ñetti noof la boole nga xam ne wenn yat ñetti noof la def noof yi daa la ko leeral dafa am lu am lu ca am lu way xam yépp xam gaa yi di lasaraar nañ ma déglu te jàpp ko mooy booy xadat sëy nag ba noof rekk mu jice day daal di tas bii ñetti noof la ma wax la ko caatum atum katar 21 le 10 wii du weer wa doon septembre it ca la nee bërit de tasaare ko 81 en prise 8 muy noof 18 1 plus 8 muy 9 septembre 9 mois mu ñetti 9 kooku sa noon boo ko dóor yat mu daanu wenn yat bi mu dóor leen ñetti yat moo tax gaa yi kii wuñ caatum 4 21 le 18 weer wa doon septembre it ca la ne bëri de tasaare ko bàyyi laat ci bis bii nag la waat nii na daal di dañ luy xeeti mooy luy xeeti po bu ma dégg ko ci dëkkub sëriñ Touba bi jël naa saa bakkan gaarante ko dana am dembaate ma wute ko mu dëppoog tasin tasin di mooy sëy bu tas ci atum tubaab 1900 mu dëppoog tasin gis nga ko mu dëppoog tasin ci la tas lu doon caaxaan ba tus de déedéetu ko tuubaa ko bon ko ne génn ko mu dëppoog tasin ci la tas lu doon caaxaan ba tus ko tuubaa bon ku ne génn ko daa nañ fi tux daa nañ fi naan daa log dorog daa nañ fi kar taka fecc bay sàllarñi ñi ko <laughs> bi li ànd gi mu ànd sëñ Abdou na dafa toog di wax sëñ Abdou Khadir mu wax ne sëñ sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir léeg-léeg sëñ Abdou Khadir ni ko Touba de nangama na sëñ Abdou Khadir sëñ sëñ Abdou Khadir nekk fa naan sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xamatul li muy wax fu mu wax maa sallallahu alayhi wa sallam sëñ sëñ Abdou Khadir daal ne sëñ Abdou Khadir mii ku koy yóbbul ci yonent ba ba mu ji ba ñëw li muy def kenn du ko a xam na dégg naa naa ko dëkk bi na ko bëgg a saxaw ak yow maa ko sallallahu alayhi wa sallam moom xamul defee ne yonent bi lay wax loolu nag moo tax man la ma andil la lay tax nag ànd bi mën a dëre nii Cheikh Abdoulaat daa def lu rëy ba waxaat ko ci 76 la ne Seyxu Jiili ñëwal aji lu ñu aj fi yonneen ciy ngëneel nga ko andil ko sëñ Touba nde Touba yi Madina loo ñaan mu am ngir yow sa soppe ba xam nga ko waajal te dem jël fukki bee joxaale ko ni ko diine jii lu ci war ci njëg tegle sëf ma ko Cheikh Abdou Khadir tontu ko ni ko cëf kalaa mboolem lu diine di sëflu maa ngi la sëf ma ko Cheikh Abdou Khadir bég fa lool santaan magam ñaanal magam feeñal mbégam moom bég na ko Cheikh du Khadir nee na ba mu demee Màkka di ñaan lu muy ñaan day njëkk ñaan seen blaat nee na seen blaat mooy saxaar gi saxaar gi mooy bopp bi bul ñaanal waa saxaar waa koy lu ñu bari bari ñaanal ki ko jiite moo tax bu saa dem nee na masarul xaraam ak fu mu ci mën dem day ñaanal seen blaat bu noppi ndax neen bopp bi demee lépp dem moo tax fu mu toog di ñaan nee mos ñaan mukk jiitalul Cheikh Abdou Lahad ngir lim ko yéene de xam na ko kii ñàkki caaxaan kii itam ñàkkoon kañaan kii njiit lu mat njiit kii di topp bu yéene ko diiru li muy aj bis bu ne dana xam la xew Cheikh Abdou Lahad mus la dikk Cheikh Abdou Lahad mus la ndikki te laaju ko bis bu set dana laaj si Mudu Mamun ñang ne ko Sëñ Abdou Xaadir mu toll dana laaj la xew fa mu nekk laaj ñam àndaloon laa tan sa sax ba ja bàyyi ba wax lay nemmiku Cheikh Abdou Khadir benn baat lay tontu rek muy sant na lool lépp mat na ñu wax ko ko xoolal ma tey mool yi nag yu tàmbali waaye dama ko sañ a bañ <laughs> mool yi faaw mu ñëw xoolal ma tey fonkeel gile ak gii wegeel ko ko weeg magam réew mi ñu nekk di xóoma ko ba mu ne ko at gii mën na sëkk gannaaw ëllëg lay waaj ñëw la la war lu nekk di def nga ko ca xër ak bëggug Cheikh Abdou Lahad ga mu def ci moom daa jël otoom wax bàcc géey ni ma indi ko bi mu ne ko gannaaw suba laa ñëw jógee Màkka daa wax bàcc géey ni ko jëlee sa oto sama oto bii jëlee ma ci sëñ Abdou Khadir te sooy dem na nga jaar ngaay ak cilmaxa bul jaar coon yi sooy ñu na nga jaaral foofu bul jaar Cees ndax Cheikh Abdou Khadir mu dem ci yonent bi ñëw fees della mbégte ku ko njëkk gis lu ne loo bëgg danga ko am kon na man ëpp laat bi maa ko war a njëkk gis ba mu jógee bàcc géey daa jubal belal ñoom ñaar ñu ànd dikki ci barabu sëñ Tuubaa ni suñ mbégte moom day ñëw sant sëñ Tuubaa kon ànd boobu loolu ko rafetaloon moom lay wax ci yi di ni ko becc bàcc géy ni ko bàcc nii dem dakaar nga jëlil ma nag Seex Abdou xaadir lii ma wax nanga déglu ko nanga jaar ci yoon wow cil ma xaw romb ngaay booy del jaar yoonu Cees wi nga teggi ko ndeke booba mbooloo maa ngi Cees def njooxe nag foo sànni battu ba rek mu tag ngir tertu ko mu ne nit ñi gis Seex du Khadir mii bawoo ca Rasulullah man Abdoulaat maa njëkke ko Touba Belal fala bàcci géy rëpputal jawal seex abdulaat ba mu nee jalañ de mu song ko ñoom ñaar ca biir oto booba dem tuubaa jawal ca barab bu seen bàyyi booba ñu nuyu ko sant ko am nañ fa waxtu di wax ca suuf léeg-léeg ñu muuñ léeg-léeg ñu ñaan luñ ñaan borom bi di nangu ko ànd bii la seen bàyyi wax ni nag mooy ànd bii te li war mag rakkam ju nekk ñu tooge ko mag ak rakk bu ñu doon toogee nii dañ mën xaj ànd waaye ne bu ñu boobu loo duñ ca xaj Cheikh Abdou Lahad nag li gën ci jikkoom maanaam li nga xam ne bi jikko yi li ñu ñuy wax li mu def ci loo xam ne moo ci gën a doy waar bi mu fi nekkee dañuy dundub Serigne Touba bi lépp daal nañ ma ko jox ma féetewoo ko di ku ku yóbbu Serigne Touba ma ko jox dund bi dañuy du ma tiim wenn ñam ci Touba woo xam ne doomi Serigne Touba yi duñ ci duñ ci tiim du ma naan genn naan boo xam ne doomi Serigne Touba yi duñ ci naan du war benn oto it boo xam ne doomi Serigne Touba yi duñ ko war Cheikh Abdou Lahad dañ ko indil fii ñeenti boole ganaar bi mu nekk xalifa jënd fi ñeenti bool yoo xam ne bool yu mag la def ganaar mu raxas loxoom ba mu set mu dem bay tibb di ci seex ba yàgg mu delloo loxo bi raxas ko ba mu set séddale bool yi ba mu jeex ni waa kër gi nañ taal luñ togg nee na la war loola mooy talaata ji jiitu muy nekk xalifa général des mourides toog na ci bunt bii féetee ak buntu kër Sëriñ Saliou mu toog ca ab sol foro la sol toog foofu ba nee na ba 11h jot ci guddi amul lum reere lii gars yi jënd muy sandwich dañoo dañoo reew rek di na man ndox laa ca def la def ci mburu ma la reere guddi googa te juróom-ñaari fan lañ ci teg ñu ko ñeenti booli ganaar mu ne kon bool yi dañ ma ko yóbbante lante noor laa waruma ko téye ndax talaata ji ne su umalu ma reer tey maam ñeenti booli ganaar kon njaboot suñu tuwaa ak ñoo ko moom tax dund beeg lépp mu yor ko nag diggante ma sëñ Abdou Khadir ba mu dikkee am gaa yi bis ñu li dund bi ñëw gaa yi gaa yi xam nga gaa yi yàgg nañ ci maanaam dogale ab dund fukki fan yoo xam ne dañ ko kii dañ ko wommi dund dundu daal di ak ko ni ko ndax yëf yi agsi na ne ko toor kàlla ba mu génnee sëñ Abdou Khadir ñu ko ah bi fukki fan yee benn ñëwut yow da nga da ngaa waroon euh, léegi wax ko ni ko ñëwut sëñ Abdou Khadir ne sëñ Abdou Lahat li mu bëgg yanu bu sañoon lépp lu baax moo ko mu murit yëpp lu day bëgg lu luy ngërëmal Sëñ Tuubaa mu yanu ko kon nag yanam bii du ma ko ci tegal na te nit kuy samp kër ku ne sab dépasse yaa ko war a fàggoo sa bopp ko ci kenn man du ma koy teg sëñ Abdou Lahat dara sëñ Abdou Lahat foofu dafa daal di woo bàyyi jullit bi dund bi ni ko li ma lay ñaan mooy bu dund fukki fan na nga ñëw xamal ma ni ma dund bi jeex na soo dikkee ne bu ma nuyu taxawal rek ma séen la xam ne dund bi jeex na lii ma la wax ne soo ko defee li ma la ci fàggul mooy mboolem ñi nga bokkal jamono yaa ci mujj nga gudd fan bu yow ma la dugal àjjana Sëriñ Abdou Khadre du ko yëg ci bayit ndax da ci am ko léerul duñ ko mën a ma indi la gëm ma indi la gëm Bamba ak Sëriñ Abdou Lahad ak ngor gu seex jiili ak matam nga xamaale ko seex Abdou Lahad woon du tiim mukk wenn ñam wuy dàq wow doomi sëriñ bi di tiimu ko te du naan mu mukkit am ndox mu teey wala ndox mu neex muy dàq moom la njabootu sëñ bi di naanu ko te du war otoot boo xam ne bii du war ko ñoom du gaare mukk ñu gis otoom ba mu ràññ ko li li moo waral ba ko Babacar Kebe miy joxe kadiyaag bu foor buy benn rekk mu gaare ko ni ko day wutal seex li ak seex son yi bu lu ko moy du ñëw ci jumaa ji war ko jullee si ko bi ko njuga wutale uh, oto bi dafa toog ñaari weer ni du ko war da koy wutal ñëpp oto njuga kebe daa wutal doomi sëriñ Tuubaa yëpp boo wutal laalee sëñ Mamadou Diop rek sëñ Mbàkke Madina kat yaag yi nga xam ne kenn na ko kon mu soo ko war oto bi ne ñoom juróom julee si ndax neen du di ràññe ko ni ko day wutal seex ji li ak seex sony bu lu ko may du war ñëw jumaa ji war ko julee si ko njuga daa jëndaat ba mat ba doom yële kenn desul ca la soo ko war kat yaag ba rakk yi séqu ko xam naa ni xóoma na Babacar mëli nag meloon ca rasulullah bañ naa sa deex ba mu ràññiku li ma xam de mooy sunu baabakar mi ñu naa njuga kebi mi ma xam la sa deex gëmoon moom gëm na ko ngir Babacar mais daa joxoon doomam yoneen alalam itam lu mu bëgg laaj ko mu jox ko ko sunu Babacar kebi mi xolam la joxoon sëriñ tuubaak jëmam alalam itam mu tasaare ko Cheikh Abdoulaat na ko jàpp jox ko sëriñ bi nag te sëriñ bi jàpp ko jox ko yeneen bi ñu sant ko te njaboot gi lem daa jëf ci yiw la ca manqué woon ñu matal ko buur beet sàmm leen ba ñu joxe ko ma dikkaat ci teertug seex jii léeg ma dikkaat ci teertug seyxu jiile bi léeg magam ca jumaa ji bañ génnee la bàyyi laat wax na ko seex abdulaat ca jumaa ji nag ca la yéene wax ni bu kenn siyaara ji ñetti fan ngeen may ko ko bi sëñ Abdou Khadir ñëwee dana ñetti fan yi ku bëgg am ngërëma sëñ Tubaa bu ci siyaara ji sëñ Abdou na ngeen ko bàyyi altine talaata àllarba ajjuma soo ajjumaa ngeen ñëw si si nit ñëpp noonu lañ def bi ajjuma jotee bi mu dikkee sëñ bi laat dafa gis dëkk bépp dafa fees comme ak màggal mu ne jumaa ji dinaa ko yokk mu ne sëñ bi xarit jumaa ji ni mu ko yokk ci la nisir woon jumaa ji ba mu julli ajjuma nag ba noppi mu dellu nag lafa doon taraanga la jël keroog da yéetaale ko Cheikh Abdou Khadir lépp luy barkeelu nag la ko jox hadiya xolob magam ba seral na ko Cheikh Abdou Khadir mu jullee te jumaa Cheikh Abdoulaat ne ko baax na léegi ma yokk ko jël am mbayam lépp mu def ko ja laaj yitam milliard bu teg nag genn wàll ri tax ko ko ñu ne déetawaay mu ne daara kaamil yit na am te na dend ak Cheikh Abdou Khadir booru ko lu ci waay di def bala koo defit na ko jox ndigal jox nit ki bopp bi di dox ci làmmiñ xóoma ko ah, mu ne weer wi it fu mu feeñe dem leen wax ko ko lu mu wax de laa wax lu mu waxul du ma déglu ko Cheikh du Khadir jël sëriñ Abdou muy dundam mooy maye soxna yi tudd doom yi la ngénte ko di jullee ñi faatu di sar xalit lu fi xew mu teew lu mu taw taw ak lu mu tàng-tàng mu róoñu ko bayit bi nag mooy mooy baytu xasida wi waaye damay bàyyi suñu saa jaxate yéen ñi bi dafa naa bu nappee ngeen saraa ko ndax am na ñoo xam ne seen wolof leerul ndax day baat baat ñaari baat yi bokk te bokkuñu maanaa seen ànd bii ñaw nañ defar ñaw defar xam nañ ko waaye caw nañ defar caw liñ far ci lu doone neen loolu nag sa reexatu na ko moo tax seen ànd bii ñaw nañ defar caw nañ defar ci lu doone neen loolu nag sa reexatu na ko kenn mus la gis lu sa reexa digle ñu jàdd ko ñoo añ ci ndab lool ngor te reer ca ba ñëdd ko Cheikh Abdou Lahad dundu njaboot gi da ko yoroon am bis mu xëy si fa Cheikh Jili laaj si ko ne ko ndax addiye ji jëm ci dund bi agsi na Cheikh Jili wax ko tabaarakallaahu tontu ko ndeke am na fan yooyu dund booba da daa dikkul Cheikh Abdou Khadir ne xalaatul séntu ko ngir nee na moom Cheikh ni yanam bi mel di ko yan leneen nee moom xelam de xalaatu ko Cheikh Abdou dafa gëstu rek ba xam la xew daa wóolu kii yor magasin bi mu sant ko ni ko dund bu desee lu mat rek fukki fan na nga ñëw te wax ma ko loo bëggit ma defal la ko ni ko boo defee nag lii ma wax li mu lay jural da nga gudd fan te sa àjjanaat maay warlu ko ka mu wax li le bàyyi ji li ture de mooy turam yàlla nañ ko aaral ak njabootam sàmm ko Cheikh Abdoulaat ni ko daay liggéeyal yàlla man ci njaboot gu sëñ Tuubaa gi lu ne teg ma ko seetal ma kii ngor gi mu am ba du laaj dara nga gisaat këléet jom jii mu am ba du aar ndiku ci liggéeyal ci liggéeyu sëñ tuubaa walaw bi su way xatin góor dëgg ngii góor dëgg ngii ma xamal la ko léegi njàmbaaru suñu bilaan ci laa bëggoon dugg tuuti fekkee xam naa ne Ahmadou Bass bu dikkee dafa wax loo xam ne xëy na mën naa euh, kii kii jotaay bi ba yàqal yàqal na sama wax moo tax damay ñaan taw bi gën yokk daa mel day taw waaw day taw rek bu ko def du ñëw <laughs> faaw gi def ci pexe <laughs> waaw dégg nga ma indi la njàmbaaru sëriñ Abdul Ahad ak nangu goog Seexu Jili def na ko marché Ocass bi dañ fa amoon ay bari yoo xam ne lu neex def bitig yooyu nag buñ dikkee sëñ Blaat ni leen bu ngeen bàyyiwul def bitig yi daa dindi seetal ma marché Ocass bi léegi ni ñu fooyee woon ni ñu fooyee woon ndigalal sëriñ bi le beew fa ko seetal ma marché bi léegi ni ñu fooyee woon ni ñu fooyee woon ndigalal sëriñ bi le fuuy fakku ci atum 75 doon la 15 décembre it mu ne waat bërit tëj lépp ba mu jeex tëj lu ko tabaxaat ko ba mu baax seet ñu baax rafet ak murit jox leen witige na leen la woon ngeen moytu ko dama doon raxas ndab yii mu set may dooru duy lu ma duy du dey dana doy ko doy lu te sant ko <coughs> bi ndox mi ñàkkee ba ñu nee ndox it lim dox ci ndox mi ba ndox mi doy kenn fàttewul caatum Senghor ma ma waxat ko ci 72 ci la 12 mai it ci la noy may it su ma juumulee forage bu mag bee séen nga ko Cheikh Abdou Khadir yit ne ko waar wii nga ne bul roppi gopp bi lii ci des maay féete ko maay tudd doom yi di faj ñi wopp di jullee ñi dem maay takk sëy lu ma ñaan borom bi mu nangu ko maay tudd bàyyi tudd doom ja tuddati ab sëtam tudd yaayam it tudd doom ja sët ba ma tudd ko da koy tudd ñu maye ko jigéen la tudd ñu maye ko mu sëyi mu tudd doom ji tudd sët ba tudd góor mu takk soxna am sox am doom am sët mu tudd yëpp ñu ne ko nag léegi gannaaw ki yaa tuddoon bàyyam te mag nga dangaa war ci yeble mu ne lislaam ko am fukki boo ci toqi te ñun lii rek moo nu war waaw bu doon ñu ne koo tudd doomam fii ne bu doom ji dikkee wax nga ne ko sa baay laa maase lool maase sa baay am na commencé sama am ti taxul mu def lu bari ci diine moo tax maay tudd doom tudd baay ba maay tudd baay tudd doom ji tuddati ab sëtam tudd baayam it tudd doom ji sët bu tudd ko kuy tudd kon jiilee ci gën kii tëdd it jiilee ci gën ki ñu tàdd it moo xaale ko Cheikh Abdou la mu deele woon lu ne def na ko Cheikh Abdou li mu deele woon lu ne def na ko deelem yi nag yett yii la woon moo xaat la ko dane woon yett yi daal daal la deele te daal yi de dana am wala wala bakkanam de moom de du fekke ko doomi sëriñ bi lee donga yii ak dëkk yii lu ci war danaa taxaw ca ba kenn du nattable ko ñoom loolu ñett yooyu la waxoon doomi sëriñ Tuubaa yi ak dëkk bi ak kii kon yaakaar naa dañu yem foofu ba gaa yi àggal sa des asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Mamadou dëgg dëgg la. li fi sotti ci ay abyaat yu am solo te bari njariñ moom mënee su ko lim lépp. xam naa ne daal moom li baaxoon mooy wutal la waxtu yaatu rek boo xam na ngay sotti di sotti rek yaa ngi sotti ba far yàlla di sotti ndox ci suñ kaw fi de mi ngi mi ngi taw taw bu bari tabaarakallaahu ci xéewali yàlla yi nga xam ne mel na ni li ñuy def sëriñ Abdou Lahad tabaarakallaahu daal xéewal moom ndox moom nee ñu xéewal ah wallaay <laughs> tabaarakallaahu jërëjëf Cheikh Mamadou Lamine sëñ Moussa Diakhaté dafa mel ni li fi jaar ci ay kàddu da ko bëgg a tënk ci ay abyaat noo gisee li fi jaar ba dellu si ay jubam sëñ Fallou ay jubam ci kàddu yi cant yi nga xam ne da koy mujjale say kàddu muy baxaru kaamil boobu ci lañ bind tuuti rekk nga xam ne moom lañuy tàggoo ma doon wax ne shukran jazilan yéen ñi doon taxawal biléb bis waykat ak sëriñ ak ku dib dongaamitam shukran jazilan yéen ñi doon taxawal biléb bis waykat ak sëriñ ak ku dib dongaamitam mu di góor gamba mu di ak jigéen ku mu man di doon sunu bi jotaay mu di mag ma mbaate mu doon ndawam ma desant na ñi ma bokkaloon sunu bi jotaay dafa def lu rëy file tey ci man di lu neex itam ma desant na ñi ma bokkaloon sunu bi jotaay dafa def lu rëy file tey ci man di lu neex itam merci les téléspectateurs merci et mesdames au à la prochaine fois sur autre poème merci les téléspectateurs monsieur et mesdames au à la prochaine fois sur autre poème jërëjëf sëriñ Fallou Kane ci tàggoo bu am solo boobu ak yooyu nga ci dugal yàlla na la yàlla fay yow itam te def la ngay mag yokk wér-ge xel mi kon sëriñ Moustapha Diakhaté sa kàddu yu mujj yow itam bisimilah. moom kàddu yu mujj yi moom cant lay doon rekk ci baxaru bii di faa'ilaatun mutafa'ilu ñuy jégglu bu baax kon baxaru bi di faxilaatun mutafxilu muy baxaru xafif boo xam ne xafif majj suwu la ci lañu tënkaat kàddu yoo xam ne day résumé rek jotaay bi ma ne sama ndeyjoor ci lay dale fàllukan mbër mu mag mile li mu way lim ci tegtale dafa leeral ñu am xelam sama ndeyjoor fi laay dale fàllukan mbër mu mag mile li mu way lim ci tegtale dafa leeral ñu am xelam abdulaat ndong de li mu feeñal ci ay xikam dafa feeñal ne ak mayam dafa rëy sàmm nab cëram abdulaat ndong de itam li mu feeñal ci ay xikam dafa leeral ne ay mayam dafa rëy sàmm nab cëram ba mu jàllee ma jël manit indi naa tuuti ciy bayit ci arab ak wolof yu set sama woy nag amul xorom ba mu jàllee ma jël manit indi naa tuuti ciy bayit ci arab ak wolof yu set sama woy nag amul xorom sama waa ji di coordonné mi ngi doxal canam gëne li ma leer mooy ku koy gane ndabi way mooy leeral xolam sama waa ji di coordonné mi ngi doxal ca nam gëne li ma leer mooy ku koy gane ndabi way mooy seral xolam te sëriñ moor it baaxe na ñi fi way wow yéeme na la mu làmboo de yaatu na dafa xam diine xam xikam te sëriñ moor it de baaxe na ñi fi teew way wu na li mu làmboo de yaatu na dafa xam diine xam xikam duma fàtteet basiiruloo li ma woy moo ma yéemuloo rafetam daf ma fàtteeloo wurus ak xànjar ak përëm duma fàtteet basiiruloo li ma woy moo ma yéemuloo rafetam dafa ma fàtteeloo wurus ak xànjar ak përëm sunu baay jóob lamin itam dafa xam way te am xorom na ko buur yàlla fay xorom jërë ngeen jëf am ngeen i ndam suma baay Jóob Lamin itam dafa xam way te am xorom naka buur yàlla fay xolam jërë ngeen jëf am ngeen i ndam yi xam ngeen ne mi guddi yëf na solo lool jërëjëf sëriñ Moustapha Jaxate ci noonu nga indee sa kàddu yu kàddu yu mujj ba santaaleel nu sax mbokk yi ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne def nañu ko mu mel ni mbokk yi jubluwaay bi rek moo doon wane ne sëriñ Abdul wet gu nekk lañ ko mën a duggee ngir jariñoo ko loolu doonoon rek as lëf ci ak dundam akub liggéeyam ak dayob xam-xamam loola lañ jëloon doon ko feeñal commission culturelle bi doon ko wane ngir xam ne Serigne laxat lu àdduna sépp bopp la ñu ñëwoon nag taajal ko mbokk yi wane ne fànn bu ci ne ci Serigne laxat Ahad na caa xuus géej gu ne mën nga ko jaare ci Serigne Abdoul la la ñor ci géej boo tabee ci Sëriñ Abdou Lahad loola danga ko ci fekk looloo waral ñu jëloon tey wet gi nga xam ne ay xikmaam la wet gi nga xam ne liggéey na ko ci làkk wi Sëriñ Abdou Lahad lim liggéeyal làmmiñ wi bari na ñu bari ñu ñuy naw ci xam-xam liggéeyuñ ko làmmiñ wi ndax àgg ci dayob xam-xam àgg ci dayob dégg arab ba noppi geesu làkk wi geesu nit ñi bàyyi xel saw làkk la ngay wax ci xam-xam nga di ko ca yàkk ci yàkkiin wu leer wu dëppoo ak xam-xam ak jamono loolu sëriñ Abdou lim ci liggéey kenn fekk ko ca discours am yi discours bu ci nekk rek téere la boo xam ne buñ ko sarxu woon mën nañ ko yóbbu ci bibliothèque yu mag yi te lépp ci làmmiñ wolof la ko yàkk ah, programme bi nga xam ne amoon na ko ci dëkk bii di Touba muy Matlabul Fawzayni daf ko jël bayit par bayit firi ko bam jeex ci làmmiñu wolof ngir wax nit ñi li ko tax a jóg ak fa jëm kon daal liggéeyal na lislaam ji liggéeyal der bu ñuul liggéeyal làkku réew mi liggéey boo xam ne kenn xamul lu mu toll looloo waraloon ñu tànn wet googu gunge ko nag ak bokk yi nga xam ne indi nañ fi ay abiyaati wolofal yu am solo yoo xam ne la ca ne ci ay baat nekk ko ci ci ay njariñ ak yoo am xorom ak euh, ay jikko kenn xameesul nu mu toll kon daal commission culturelle bi mu ngi leen di sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a fi indi woon taalif yu am solo yooyu di leen ñaanal ci barkeb Sëriñ Abdou yàlla dëgëral leen guddal seenu fan yokk leen ak wér di santit bu baax mbokk yi nga xam ne ñëwoon nañ ngir teewe si jataay bi di leen ñaanal gudd fan akuk wér ak lépp lu di aw yiw ak xéewal ci njariñul bis bi sunu borom boole na ko di leen fàttali rek ne incha allahu suba la bisub màggal gi a ah, sëriñ Abdou Lahad ginnaaw nag nga xam ne defal nanu xéewal yooyu liggéeyal na jullit yi liggéeyal murit yi liggéeyal doomu aadama liggéey boo xam ne bu ko nit bëggoon a defal sa bopp doo ko man ginnaaw moonu wutu foofa yaral bàyyi njaboot gi jubbantiwaat fàttali mag ñi fexe ba luy lore mu daqal nu ko luy musiba mu fegal nu ko fegal nu ak mooy ak ya ca des jëmbatal nu aw yiw xéewal kon daal bu bisam ñëwee li jaadu mooy jéem koo fay bor jéem ko delloo njukkal ndax ginnaaw daa daan wax ne gor soo mas a gis mu dee fi barab teraangaa ko fa rey te koo mas a teral ku ne dalay wax ne yàlla naa fekke sa bis ba def ca sama bakkan kon lu waay man ci njàngum alxuraan lu waay man ci njàngum xasida lu waay man ci salaatu ne nabi noo ngi sàkku ci turu commission culturelle bii nga xam ne ah, sëriñ Abdul Ahad Jaxate ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Maxtaar sëriñ Abdul Ahad Bousso Mutalib sëriñ Abdou Lahad Diatara sëriñ Abdou Lahad Ñang sëriñ Abdou Lahad Lo sëriñ Abdou Lahad Azhar ñoom ñëpp sëriñ Abdou Lahad Bousso Maram ak bokk yi nga xam ne ànd nañu ñoom waa daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne dañuy ñëw di ñuy jàppale ñoom ñëpp daal noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku daal njàngum xasida moomu ak njàngum alxuraan mi ñu taxaw ci bu baax ndax sëriñ Abdou Lahad alxuraan moo doon ak bëggam moom la taxooloon moom la soppoon moo doon ab xaritam ba bi muy dellu ci boromam fañ ko def alxuraan la ko wër ci wet gu ne kon lu waay man ci wàcceel ko kaamil ngir delloo ko njukkal waaye itam delloo njukkal Serigne Touba mi mu doon liggéeyal commission bee nga koy sàkku fu ci waaye nekk mu taxaw ci lu mel noonu ku mën a màggal si na ñëw ku am ngànt fa mu nekk mu jàngal ko ñaanal ko waaye itam mu berndeel ak njabootam ndax wàlluk bernde googu itam jàmbaar la ci woon kon noo ngi leen di jégalu di sant mbokk yi doon jël waxtaan wi di ko jàllale ñoom ñëpp noo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal Serigne Sidi Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ko wér. di sant it Serigne Mahmoudan mi nga xam ne moom la jox mu jiite màggal gi ak sëriñ Abdoul Ahad jaxate mam ko àndal ak Serigne Abdoul Ahad ka ak bokk yi ci jàpp yëpp. noo ngi leen di jégalu in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu